ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma Production da ngay beus fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi. Xidma Production la scène du mouridisme. jamonoy xëccoo ak wut fi mu toll ndax. député yaa ngi ñëw ñu war ko xëccoo bu jàllee itam xëccoo réew mi jot tànn njiit fi mu toll nag ñi xëccoo ñëpp dañuy jóg ci si sëñ si sëñ si yàlla da leen boole booleeg mbooloo wax ne moomuñu mbooloo ma dañ leen a war a guider ci saatal mustaqim war leen a ci ak taalibe kon sëñ si waruñoo jéem a jaay mbooloo ndax lu ñu leen jox. mboolem mi topp seen gannaaw tax ñu jox leen ko te mboolem mi juróom ak ñaar yi ñam ñu ngi leen ci jox ngir sëñ Tuubaa kon lañ leen jox buñ ko lekk nañ ko dale ca mboolem ndax ay dafa am yoo xam ni ñu ngi ciy sant nguur di ci sant ku ne te ay hôpital ak yoon ak sécurité loolu nguur la fu mbooloo ne fa ñoo ko def fu mbooloo daj itam ñoo ko for def kon am na yooyu jëru sant kenn ndax suñu juróom ak suñu ñaar ak suñu impôt rek moo ko def te ñoom ñooñu nag di jóg fi mu toll dañuy jóg di wut di wut sëñ si waaye nag sëñ si dem nañ xam seen bopp bu baax a baax ndax ku ñëw te jóg yow ci sam nekk sëñ buy bu leen di buy dem ti ñoom da ngaa waroon ànd ak sa mboola dem fa lañ lay wax ñëpp dégg ko nga wutal ko nga ko seere ndax mën ngaa dugg ak ñoom fii ñu jox la fukki dërëm ñu jox nañ ko ab million te booba sëg wet a tax doo ko mën a weddi booba tuumaan nañ la. bu ko defee mbooloo mu wër la di biiw jàppale workat te fekk wuroo kenn moo tax looy def ak ñoom na ni fang ci biti mooy sel sab der sëñ sel nag nee na ñoom dañoo ñàkk secret ndax ne lépp luñ la dig bala ñu ko def dañ ko wax téeméer te bu noppee waxaat ko téeméer dañ laal na yem suñu digg ak yow bu ko defee sa rakka nga fee sa dooma nga fee sa taalifee nga a bukk booy gën téléphone yi diw ñëw si bañ ko jox ko nangam ba nga daana gën yaa fi gën yaa liggéey ñuy wax lu gën a ñaaw soo jeexalee nag dem ak jàmm am jàmm kon tey su boobu day tey su mënta saabu day ñëw So xëccu nak wa ci ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi fi ci Xidma production da ngay vous fi ñu bind bo noppé tek ci cloche bi. Xidma production la scène du mouridisme.